di jéem bay sunu laaj ren insha ci sas wi nga xam ne dañ na ko sase muy waxtaane lu jëm ci saafarawu ci alquran ak ci ñaan yi jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atte yim am ak tëraliin yi suñ nee àtte yim am ak tëraliin yi nag kon ñu xam ne bind bi li ko tax a jóg du mooy jàngal la ñaan yi nga war a wax ne la boo xëyee lii ngay wax bu bëccëgee lii ngay wax wala booy dugg lii ngay wax génn lii ngay wax waaye atte yi lañ bëgg a joxe ak tëraliin yi ndax nga mën a xam yooyu soo koy def noo koy defee ndax kat nattab li wu ma ne ñaan yooyu am ko du lu jafe léegi téere yi koy jàngale tasaaroo na lool bari na lool alquranul karim it mi ngi ci loxo jullit yi yàlla yombal na ko kon jot ñaan yi ak laay yi ñuy ñaane euh, yomb na waaye tëraliin yiñ tëral ngir nga xam soo koy jëfandikoo lu ca jaadu ak lu ca jaaduwul lu ca dagan ak lu ca daganut ak defin wa foofu la wax ji jëm danañ ko séddale nag ci ay tomb yu néew yoo xam ne xëy na gëstu gi moo gën a yaatu liñ ci nar a wax ndax waxtu wi waaye danañ seet la ci gën a ñor wala lañ jàpp nun ne mooy la ci gën a ñor ñu jaar ca tomb yi ñett la bu jëkk bi muqaddimatun wa usus ay njiit yoo xam ne dañ koy jiitloo ndax mu toog palaasu li ñuy wax fondation soo defaree fi ngay bëgg a taxaw ba mu dëgër soo taxawee jombul sab taxawaay mën naa doon taxawaay bu sax kon tomb bu njëkk bi ci njiit laay yooyu wala ci fondation yooyu ci la jëm ñaareel bi rakaisul muxaafazati ala sixati wa axkaamuha wattu gi doom aadama war a sonn ci jéem a garde wér-gi-yaramam pàq yi nga xam ne ci la sax mu doon ñaari pàq benn ba tudd fegu bi ci des tudd faju fegu ak faju mooy alwiqaaya ak attadaawi ñetteelu tomb ya min dawaabiti tadaawi règlement yi nga xam ne ci la saafara wu di tegu muy tëraliin yi sharia tër ne kuy saafaraw ci alxuraan wala ci sunna defe ko nii kon rek nu daal di tàmbali ci tomb bu njëkk bi muy njiitlaay yi njiitlaay yi ba ci jëkk moo di ne war na ci jullit bi mu gëm ne borom bi tabaraka wa taala bind na mbir yi ba noppi téere ya fendi na loolu mooy lan mooy dogalu suñu borom tabaraka wa taala yàlla ci boppam mooy dogal mooy tër te lam tër loola mooy lam nar su ko xasee tër ba nar ko ba ak nammeelam tàbbi ca ba mu amal ko loola luy am la lim dogu ne du amit loola kenn mënu koo sottal loolu ci njiit laa yi jullit bi war a yóbbaale ci bunt bi ci la bokk ñaareelu njiit laa yi moo di al axdu bil asbaabi duna taalluqi biha yàlla kat moom moo bind yëf yi ba fendal ay xalimaam wowal ay téeréem waaye teewul jaam bi moo ko digal ne ko jëlal sabab yi sabab lool seetal li nga xam ne boo ci yëngatoo dukk dukki ca jombul njariñ mën na caa jóge seetal li nga xam ne boo ci yëngatoo lor mën na caa dàqoo nga yëngu ca yooya loolu borom bi tabaraka wa moo ko santaane sabab yooyu nag jamono yi nga ciy jafandu doo jël sa lépp teg ko ci sabab yi ne saa bu ma amalee sabab bi rek u mbir mi dafa war a tëdd ni ma ko bëggee déedéet mën ngaa indi sabab yi ba noppi la nga doon wut du ca am waaye fekk na yow am nga lu baax ndax def nga lañ la digaloon kon sabab yi am nañ li ñu tudde tafsir muy jeexit waaye jeexit woowu day fekk mu dëppoo ak nammeelu sunu borom tabaraka wa taala ñetteelu njiitlaay bi mooy ñu xam ne borom bi tabaraka wa taala bi mu bindee doomu aadama dafa am lum sasoo moom am lum ko sase borom bi tabaraka wa lim sase boppam féetewoo ko mooy yore say mbir sa wërsëg moo ko yore sa dund sa wér gi yaram sa jàmm ak lépp luy xew ci sa dund yooyu sun borom tabaraka wa moo ko yoreel boppam am nag lum la sase mooy lan moo di jaamuma wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li yabudun binduma jinne ak nit lu dul ñi jaamu ma kon jaam bi foofu war naa am xel wattu ba du tàbbi ci lii dal ñenn muy di jéema a def li borom bi tabaraka wa féetewoo ba tax mu xañ ko lim féetewoo moom borom bi tabaraka wa taala li mu féetewu mooy moo yor say mbir léegi léeg nit ki day sonn lool nag ci mbiri boppam ak wéram ak jéem a yokk aw fanam ak jéem a wéral yaramam ak jéem a def pexe yoo xam ne mën naa dem ba loolu gàllankooral ko li ko taxoon a jóg muy jaamu ko wattul loolu mooy bàyyi saw sas ñëw fekk li sa borom tabaraka wa taala sasoo nga tàbbi ca ba yàqal la lañ la sase woon muy jaamu yàlla gi kon saafaraw walla lépp loo xam ne doomu aadama maa ngi koy jéemal boppam moo xam wut lu muy lekk la wala wut lu muy naan wala wut lu muy sol wala wut fu muy dëkk wala wut lu koy jox wér-gi-yaram saa boo xamee ne loolu dem na ba àgg ci jalgati lenn ci ak jaamu yàlla am su boobaa njaaxuma ngay am na gaaw taxaw ndax jaamu yàlla gi moo ko fi indi waaye sàmm wér-gi-yaramam ak wut lu muy lekk ak lu muy naan loolu dong loolu indiwu ko fi tomb ba ca tegu moo di ne al aslu fi xaalati al insaan alsixatu wal aafiya wa ama al marad fa taari lii cosaan ci doomu aadama mooy wér-gi-yaram noonu la ko borom bi tabaraka wa taala binde laqad xalaqna al insaana fi axsani taqwim dafa bind nit defar ko ba mu jekk mu mel ni mu war a mel yor wér-gi-yaram yépp waaye nag feebar moo xam feebaru yaram la wala feebaru bakkan wala feebaru xel moo xam da ko dal ba mu juddoogul nekk ci biirub yaayam wala ba muy judd fa la ko dalee wala daa judd ba noppi mu dool koo dal yooyu yépp yuy gaar doomu aadama la waaye doonu ca cosaan kon la cosaan ci doomu adama ji mooy wér tomb ba ca tegu moo di man istaxna bi ma sharaa allahu axnaahu allahu amma siwaa képp ku doyloo li borom bi tabaraka wa taala daganal dana la fegal ba doo aajowoo loo xam ne daganalu ko dana la fekk aar la ba doo aajowoo loo xam ne borom bi tabaraka wa taala daganalu ko kooku ab régal bu am solo la dafay dëppoo ak li yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne man taraka shay'an lillahi awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara te yàllay kese tax yàlla dana la wuutalal lu gën loola ku bàyyi dara te yàlla kese tax borom bi tabaraka wa taala dana la wuutalal lu gën loolu kooku xadis la boo xam ne al imam ahmad ibn hanbal solo na ko ci sanad bu wér tomb ba ca tegu moo di feebar ci boppam dafa bokk ci yi dal jaami yàlla yi ci dogalu sunu borom tabaraka wa taala musiba la moo xam ne day dal nit ki ci dogalu borom bi tabaraka wa taala moo wax wa ma asa min musibatin fi l ardi wala fi anfusikum illa fi kitaabin min qabli an nabra'aha inna dalika ala allahi yasir lépp lu dal ci musiba ci suuf wala ci seeni bakkan ak seeni yaram fekk na mi ngi ci ab téere lu jiitu loola di am maanaam borom bi tabaraka wa taala bindoon na ne loola dana am lu jiit loola di am mu ne loolu du lu jafe ci suñu borom tabaraka wa lu yomb la ndax moom dara jafewu ko tomb bi ci tegu moo di jëmmi feebar moomu ànd ak li ko doomu aadama di bañ bañ bañ am na ay xikam dafa am ay xarañi yu nekk ci biir tawat yoo xam ne moo tax borom bi tabaraka wa taala léeg-léeg mu teg ko ab jaamam li waral loolu moo di suñu borom tabaraka wa bindul mukk ayu kese bindul ayu kese dana bind nag loo xam ne léeg-léeg mu doon ay ci ñenn wala mu doon ay ci kenn ba noppi wëlbatiku làmboo ay njariñ ca kooka wala ci ñeneen léeg-léeg am loo xam ne dañoo jàpp ne ayu kese la waaye fekk na am na ñoo xam ne njariñul kese la ci ñoom kon borom bi tabaraka wa taala bindul ayu kese woo xam ne ayu neen la ngir mu lor doomu aadama yi ket waaye lu mu mën a doon rek am na njariñ yu nekk ci biir ki feebar masalan ci misaal feebar ci boppam bi ko nit ki nekkee ci biir tawat ji yashuru bi ni'matil aafiya ki feebar mooy xam xéewalu xéewalu jàmm xéewalu wér-gi-yaram su fekkoon de ñépp dañoo ànd rekk wér kenn musta feebar walla nga judd ba keroog ngay màggat musoo feebar lépp doon wér-gi-yaram kon xéewalu jàmm jooju doo ko yëg waaye jàmm ji nga xam ne mooy jàmmi wér gi yaram ngir nga mën ko mosal sa bopp da ngay dem ba mu yàgg ñi xañ la ko ab diir soo dellusiwaatee xam li nga yoroon lan la mbiri dund bi yépp boo ko jëloon benn par benn noonu la am am bi ak ñàkk gi noonu la su doon da ngaa judd ci am mosoo ñàkk benn yoon dangay dem ba mu yàgg alal ji duutoo ko teg fenn day mujj sax duutu neex waaye soo demee ba mu yàgg nga dugg ci jafe-jafe ba mu yàgg nga delluwaat ci xéewal nga door a xam ne ah man kat ndeke ci dara laa nekk kon benn tombangoog ci njariñ yi nga xam ne feebar dana ko jariñ beneen moo di ne feebar ci boppam su fekkee ne ki ko yàlla teg muñ na ko daf koy faral ay bàkkaar defe naa ne doomu aadama ji bokk na ci yim gën a aajowoo mooy ku ko jéggal ay bàkkaaram faral ko ko yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ñi nga xam dañoo jóg di sonn ci yoonu yàlla di jaamu yàlla ak dégg sax leen jamee loolu bindal nañ leen ci tuyaaba faral leen ci bàkkaar kon feebar bokk na ci ay njariñam moo di dafay faral nit ki ay bàkkaar moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay njàngaleem booy seeti kuy feebar bokk na ci kàddu yaa nga koy wax nga ne ko taxurun insha allah maanaam ak laab rek lay doon maanaam ak set wecc ci bàkkaar insha allah ñaari tombangoog yuy jariñ kon ci tawal bokk na ca moo di ne ki feebar mën naa am yool bu rëy su fekkee ne jamono yi muy saafaraw seet na li dagan mu tënku ca la daganul mu bàyyi ko su fekkee ne jamono yi muy feebar bëgg a génn ci feebar ba di defi pexe seet na la dagan mu tënku ca bàyyi la daganul kooku dana am foofu yool bu rëy kooku nag day fiq boo xam ne jullit bi moom daf ko war a yóbbuloo fu mu toll fu ne ndax li daganul moom kenn waxul ne amul njariñ de li daganul kenn waxul ne amul njariñ waaye ginnaaw daganut kooku day lekki tuyaaba di indi ay bàkkaar loolu moo tax jullit bi da koy daw dunduk àddunaam jaralu ko ko boo xoolee ci qisasul anbiya yeeg nit ñu baax ñi da ngay gis ne dafa fees dell ci yoo xam ne ay nit mënoon nañ faa def dara la tax ñu fegu ba defuñu ko mooy xam ne loolu dëgganul lanu ci gën a jege ñu teewlu ko moo di nitu firaw na ña jabar ya xam nga ne ci jamono firaw na jabar yi àndoon ak moom ñoo dàqoon a jabar ci àdduna bañ dajeeg Muusa lu xew borom bi tabaraka wa jox na Muusa aw yat yat wa dikk na jommal leen jabar yi biñ jommee te xam ne wóor na leen ne ñoom fii ñu àgg ci njabar kenn weesuwu ko kon ki ko weesu leneen la fa nañ def daal di gëm amanna bi rabbi Muusa wa Haaruun nun kat dal nañuy gëm kon yàlla ji Muusa di woote moog Haaruun na am mbett lool ne ko ah lum ca teg ne ko yéen ñëpp kii ndikete mooy seen magum jabar mi yéen ñëpp danaa leen def lii danaa def laa danaa dagg seeni tànk ak seeni loxo tontot wax wax wax yi ñàng buñ noppee luñ ko wax faqdi ma anta qaadin innama taqdi hadihi alxayat addunia defal man mooy jëleenu fi kepp muy laaj bi mooy jabar yi nga xam ne ñoo fi sut daanaka lu ne mën nañ ko ndax mënuñu woon a jabar firaw na fi saa si mu daal di dee waxu mënoon nañ ko sàkkal pexe wala ñu indi lu ko dàq mu daw ñu mu ci ayam waaye ci mu jaradu ñu tuub rek daal nañu xam ne njabar ci boppam daganut ñu teg njabar gi fële gëm ne jaami yàlla lañ léegi firaw naa kàttanam mën na leen a def lii mu leen di dikk te duñ jaamaarloog moom ci njabar kon kooku daal di doon benn bunt boo xam ne dafa ñuy jox njariñ ci ne nit ki su demee ba mën a fegal boppam waaye mu xool li ko mën a fegal ndekete daganul mu bañ koo jëfandikoo ma ngay fàggu lu rëy lu ëpp solo wér-gi-yaram lu ëpp solo sax ak dund loolu mooy dunduk ëllëg mooy mucc ci ay bàkkaar bokk na ci njariñ yi it moo de feebar ak bépp jafe-jafe bu mu mën a doon ci dund gi dana tax nit ki xàmmee ay xaritam ak i soppeem jamono yi mu tëddee ne làcc dana ca xàmmee ñan ñoo di ay mbokkam ñan ñoo di ay soppeem dëgg-dëgg kooku bokk ci njabar yi ci njariñ yi nga xam ne kooku euh, njariñi feebar la liñ bëgg a wax foofu moo di borom bi tabaraka wa taala lépp lu mu bind lu nekk xamal ne njariñ a ngi ca biir feebar boobu ak li muy metti metti ak li nit ñi daw daw ngir bëgg cee mucc teewul ay njariñ a ngi ci biir xam njariñ yi nag li muy jariñ mooy kiñ ko nattoo mu fexe ba jariñu ca mu fexe ba jariñu ca tomb bi tegu ci njiit laa yooyu moo di ne at tadaawi laa yuaaridu tawakkul tawakkul saafarawu dàqoontewul ak wakkiirlu ci yàlla ndax yàlla mi ngay lu ci moom moom moo la digal nga saafaraw loolu moo tax euh, al imaam ibnul qayim muy wax naan xadiis yu wér yi boo leen xoolee dangay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day digle nit ki feebar wala ki tawat muy saafarawu mu ne loolu dàqontewul nag ak wakkiirlu ci yàlla comme ni nga xamee ne ki feebaru xiif dal mu di ko faj di wut lum lekk loolu dàqontewut ak wakkiirlu ki feebaru mar dal muy kër kër yi ngir am lum naan faj tawat jooju noonu nga xam ne loolu dàqontewut ak wakkiirlu ki tàngoor ñëw ci moom mu koy faj wala ab sedd ñëw ci moom mu di ko faj ni nga xamee ne yooyu yépp da xonte wuñ ak tawakkul muy wakiirlu nekke noonu it feebar bi dal nit ki muy kër kër yi di ko faj loolu itam dàqonte wut ak wakiirlu foofu nag nit ki mën na ne waaw yonente bi sallallahu alayhi wa am na ci benn xadis boo xam ne dafa tudd ñoo xam ne dane bu ëllëgee kenn du leen xisaab dañuy waaxu rek dem dugg àjjana ñi laaj ñooña nuñ mel mu ne leen ñooña duñ mocclu duñ ñaasu di faju duñ jëfandikoo istirqa duñ jëfandikoo alkay te dañuy wakkiirlu ci seen borom ñu ndax kon faju kon day dàqonteeg wakkiirlu ñu ne déedéet dàqontewut ak wakkiirlu wonewul itam ne ñooñee duñ faju wonewul ne duñ faju duñ jël sabab yi ndax mën nañoo faju ci yeneen waaye yaari yëf yooyu la wax ne ñoom duñ ko jëfandikoo muy duñ istirqa dem ci nit ne ko moccal ma li ñuy wax ñaasit duñ ko jëfandikoo fekk li tax loolu duñ ko def mooy dañu wakkiirlu ci seen borom kon foofu am na lu fi nekk mooy nit ñépp tolloo wuñ ay daraja ci lenn am na ñoo xam ne mën nañoo dara dal leen ñu muñ ko bañ koo def bañ faju lu yàgg a yàgg door a wëlbatiku dem ca loola am ñoo xam ne mën nañ koo muñ sax faw ba fawu far am ñoo xam ne itam mënuñu ko muñ lu leen dal ñu daal di jóg yël ca sabab ya def li nga xam ne mooy saafara loola loolu it nag lu baax a baax la dana ñëw ci kanam ci tudd atteb saafarawu ci sharia nan la ko boroom xam-xam yi gisee insha allah kon daal ci gàttal saafara saafarawu moom dàqonte wut ak wàkkiirlu waaye wàkkiirul nag bunt bu yaatu la boo xam ne nit ñi dañ ciy rawante nit ki mën na cee dem ba àgg fii keneen weesu ko keneen weesuwaat kooka keneen waat kooka ba ba ñuy àgg ca euh, fa ñuy àgg waaye nag ak fu ñu mën a àgg ci wàkkiirlu it nag ñu xam ne mbir ma su demee ba wàllu bakkan aju ca su boobaa faju kenn sañatu ko bañ a def su demee ba bakkan tegu ca kenn sañatu la bañ a faju bu boobaa loolu dana ñëw ci kanam kon loolu mooy tomb yi nga xam ne jaadu na nu jiitloo ko def ko ay njiitlaay door a wëlbatiku nag ci eh, bànqaas yi nga xam ne ñoom la nit ki di sukkandiku ngir mën a wattu ak wér gi yaramam yooyu bokk na ci li ñu tuddee al wiqaaya mooy fegu al imaamu bi ci téere bi ñuy wax al muwaafaqaat dafay lim yi yu metti yi dal doomu aadama yi mu ne daal li ñuy déggee ci sharia bu fekkee xool nga ko bu baax a baax moo di sharia digal na nit ki mu fekk lépp lu koy mettital digal na ko mu fekk lépp lu koy mettital lu tax mu ne ngir wattu bakkanam ak àq ji nga xam ne moom la ko yàlla jox mu jariñu ci droit ci bakkanu doomu aadama ñi fegal ko li koy mettital mu ne yemul ci nag su ko dalee ba noppi waaye sax inda tawaquiha muy su séentoo sax ne lii mën naa ñëw metiital ko sañ naa defi pexe ngir loolu bañ a agsi kon loolu moom la ñuy tuddee moom lañuy ñuy tuddee fegu kon bépp xeetu feebar boo xam ne xam nañ ne am na lu koy fekk moo xam loola lu ñuy jariñoo ci ay ñaan moo xam ay ñàkk la moo xam lépp luy téye feebar boobu agsi ci doomu aadama ji moo xam sax bañ a tàbbi fa feebar ba nekk la daw ko comme ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee ci taaxun euh, muy feebar bu bon boo xam ne day tere fu mu nekk ku fa di dem di fa dugg wala ku fa dugg bam bañ ragal ne mën na laa gaar nga génn di dem fekk ñu wér loolu lépp ci sabab bi aaru ak fegu ci la bokk fàttali yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci tàndarma ji ñuy wax ajwu ci madina nee na man tasabbaxa bi sab'i tamaratin min tamri almadina lam yadurruhu sixrun wala sum nee na képp koo xam ne xëy nga ndékki ci juróom-ñaari tàndarma ci tàndarma yi madina ji ñuy wax al ajwu tàndarma la juñ xam foofa nee na kooka njabar du ko jëriñ du ko lor tooke itam muy posen poisson loolu du ko mën a lor xadis boobu mu ngi ci buxaari ak muslim kon xadis bu wér la te loolu mi ngi dugg ci buntu dàq balaa balaa tàbbi ci kaw nit ki dàq balaa bi balaa ñëw kon kooku ci fegu la dugg xeeti fegu nag dafa bari bokk na ci xeeti fegu yi njub njub ci boppam ci yi fegal doomu aadama njub buñ ko waxee mooy def ndigali borom bi tabaraka wa taala bàyyi tereem yi bàyyi tere yépp ndigal yi nag la nga ca man nga di ko def kon ki baax mi ngi fegu ndax kat lu bare bari ci lor yuy dal doomu aadama yi mën naa jóge ci doomu aadama wala mu jóge ci seytaane iblis ak i soldaaram nit ki nag su jubee mën na ko bañ a yëg sax borom bi tabaraka wa taala di ko fegal te yëgu ko moo tax mu ne wa in tas wa in tasbiro wa tattaqu laa yadurukum kayduhum shay'a su fekkee ragal ngeen yàlla boole ko ak muñ pexem noon yi du leen mën a lor kon njub mooy tomb bi ëpp solo ci tomb bi fegu yi bàyyi tooñ bàyyi tooñ nit ñi ci seeni alal ak ci seeni der ak ci seeni lépp dana tax a mucc ndax kat bul fàtte ne ki tooñ ñi ñaan yàlla ko ñaan yàlla gi day dal ci kawam ki tooñ ñi ñaan yàlla ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaanu nit ki ñu tooñ ki nga xam ne zulm dafa dal ci kawam toujours moom laay bëgg a wax loolu lu aaja leer ndax boo dee ñaanu ki ñuy tooñ wala ku ñu tooñ ñu baree bari seen i nopp day dem defe ne ku ñuy tooñ mooy comme na ngeen ko xamee rek hmm. ah. wax loolu nit génn ne ah kon ku ñuy tooñ kum ñaanal rek loolu dalay dal fekk ñaanu ki nga xam ne yow danga ko tooñ ci alalam wala nga tooñ ko ci deram def ko lu jaaduwul wala nga wax ko ko te tey ko kooku su su ñaan yàlla ñaan yàlla nga diisu ku muur dafay dal nit ki kon bàyyi tooñ googu ci yi fegal nit ki ay musiba ci la bokk jàng alquran itam saxoo di ko jàng ci yi fegal nit ki ay musiba yu jóge ci seytaane muy iblis ak ci soldaaram ci la bokk moo xam soldaar yi jinneem wala soldaar yi nitam borom bi tabaraka wa taala ne wa ida qara'ta alqurana jacalnaa baynaka wa bayna alladina laa yuminuuna bil axirati xijaaban mastuura soo jàngee alquran maay def kiiraay sa diggante ak noon yi nga xam ne mooy noon yi gëmul yàlla ñooñu mën naa doon nooni nit mën naa doon nooni jinne su ko defee nag bokk na ci yey fegal nit ki itam moo di al adkaar wal adaiya ñaan yi ak tudd yàlla yi gannaaw boo xamee ne alquran jàll na yooyot ci yi fegal nit ki ci la bokk kon saxoo di jàng adkaar yi jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu jàngale ko suba ak ngoon yooyu di ko saxoo dana fegal nit ki musiba yu bare bare bari mbokki jullit yi ah, bokk na ci it nag yi nga xam ne day fegal nit ki mooy jëfandikoo yi nga xam ne nit ñi ñëw ko gëstu ci seen xam-xamu doomu aadama moo xam ci wàllu médecine moderne la wala ci wàllu médecine traditionnelle muy lii nit ñi gëstu ba xam ko ci wàllu garab yeeg xob yeeg reen yi nga xam ne boo ko xoojee naan ko lii la lay jariñ tam doon lu wér wala mu doon ay doom wala ay confirmé wala piqûre yoo xam ne docteur yi ñoo gëstu ba àgg ci xam ko ñu ne lii day feg lii loola it boo ko jëfee jëfandikoo ci fegal nit ki ci la bokk tomb bi tegu ci boobu moo di at tadaawi min al boroom xam-xam yi am nañ ak juuyoo ci at teb saafaraw nit ki tawat dal ko mu jóg ne da koy faji ci lu dagan nag ci lañ juuyoo waaye la daganul moom juuyoo wuñ ca abu xanifa rahimahullah ak ñim àndal nee nañ ci feebar dal lu feddliku ci moom la feddliku goo xam ne daa dem bay bëgg a war sax mu jóg dem wuti lu ko faj al imam malik rahimahullah nee na saafarawu ji ak bàyyi ko ñooyam lu ci neex waa ji sañ na koo def boppam a ngi metti bu ko neexee ne jóg wuti garab faju bu ko neexee mu toog di mën naa koo muñ nee na ñooyam al imam shafii ci ngiram dañoo sopp faju ki dara dal sopp nañ mu dem faju ci al imam ahmad dane lu dagan la lu dagan la maanaam bu ko neexee def ko mu ne wa tarkuhu afdal su ko mënee bàyyi ngir wakkiilu loolu moo gën waaye loolu lépp ay mbir yu aaja xoolaat la moo tax euh, ci beneen côté bi bala ñu agsi foofu ci jéem a xool lan moo gën a dëgër ci wax jooju bu fekkee ne la saafara woo lu xaraam la moom kooku juuyoo wuñ ñoom boroom xam-xam yi ci ne daganut moo tax xadisu abdullah ibnu masud yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne inna allaha lam yajal shifaakum fi ma xarama alaykum yàlla deful seen saafara ci lim leen lim araamal ci yéen xadis boobu Buxaari moo ko génne rawatina nag sàngara ak lépp lu ko jege ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne innaha daaun wa laysat sàngara ci boppam feebar la waaye du saafara feebar la waaye du saafara ibnu taymiya mi wax ci majmuul fatawa ci xaaju fukk ak juróom-ñett xëtum fukk ak ñaar mu ne boroom xam-xam yi day def nañu luy nuru ak xëccoo ci saafarawu ndax dafa dagan wala dañ koo sopp wala daa wax mu ne la dëgër nag moo di ne am na ca lu xaraam ci faju am na ca loo xam ne luñ sib la am na ca loo xam ne lu dagan la am na ca loo xam ne luñ sopp la kon li ñu tuddee al ahkaamu charia xaw na caa daje mu ne mën na cee am lu nekk lu war loolu mooy su fekkee dem nañ ba xam ne su fajuwut day dee su boobaa dana war comme ni nga xamee ne lekk médd day war ci ki xiif ba xam ne bu lekkul day dee ñi araamaloon ci miam moom médd ñu ne ko demal lekk médd mi noonu muy daggane ñu ne ki fee ki feebar ba mu wóor ko ni su fajuwul day dee kooku day jaadu ci moom mu dem defi sabab ngir faju su ko deful dana bàkkaaru bàkkaar boo xam ne bu rëy la nee na kooku moom boroom xam-xam yi muy al aima al arbaa juuyoowuñ ci nekki dem ba àgg foofu daa war a faju kon nga xam ne juuyoo gi ma la doon wax ci gannaaw ci diggante wa Xanifa ak Maalik ak Shaafi yu mel noonu fi mu tënku mooy kii nga xam ne feebaram àggul ci ñi ragal ne kii mën naa faatu waaye soo xasee àgg na feebar bi mën na koo faat su fajuwul kooku day war ci moom mu dem faju ji lu ko waral mooy day daw xaru moo tax leen ci borom xam-xam yi ibnu Usaymin dafa ne lépp loo xam ne not na ci sa njort ne lu am njariñ la not na ci sa njort bii saafara bu am njariñ la te boo ko bàyyee mën ngaa alku kooku day war ci yow nga jëfandikoo ko kooku mooy benn li nga xam ne not na ci sa njor njort ne am na njariñ waaye nag gisuñu lenn luy wane ne ñàkk koo jëfandikoo dana tax mu faatu nee na lu bu boobaa dagan na mu jëfandikoo ko waaye bàyyi ko moo gën su fekkee ñaari mbir yi nag ñoo yam kepp am na njariñ waaye jëfandikoo gi ñàkk jëfandikoo gi moo yam ci waa ji nee na su boobaa ah euh, maanaam bi passé léegi jëfandikoo gi moo gën su fekkee ñoom ñaar ñooyam yam kepp su boobaa bàyyi gi moo gën neena kon ñetti mbir yooyu ñoom la ko sé séddale kon daal suñ bëggee gàttal li ñuy wax foofu ci bunt boobu moo di ne saafaraw ci boppam sharia digle na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li kulli daain dawa fa ida usiba dawaau daa dawaau daai baraa bi idnillahi azza wa jal nee na feebar bu nekk ab salaam xadis boobu rawahu muslim beneen bi mu ne ma anzala allahu min daain illa anzala lahu shifaa borom bi tabaraka wa taala wàcce wut tawat lu dul wàcce na saafaraam yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxaat ci beneen xadis boo xam ne alxaakim génne na ko ci sanat bu wér mu ne yaa ibadallah tadaawaw fa inna allaha azza wa jal lam yadaa daan illa wadaa lahu shifaa gayra daain waaxid qaalu ma huwa qaala alharam nee na borom saafarawu leen faju leen borom bi tabaraka wa indiwul feebar lu dul indi na saafaraam nee na ba mu des genn ràgg ñu ne ko googu gan la mu ne màggat màggat moom amul saafara am na beneen riwaay boo xam ne dee la wax maanaam kon màggat ak dee ñu amuñu ay saafara xeeti faju nag moo di faju comme ni ngeen ko xamee ci hôpital médecine wala ci lu demee noona beneen bi ci des mooy mocc mocc yoo xam ne dafa jóge ci alxuraan bu dee ci wàlluk sharia alxuraan saafara la borom bi tabaraka wa nee na wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lilmuminin wala yazidu zalimina illa xasaara ne danan wàcce ci alquran loo xam ne saafara la yërmaande la waaye du dolli maanaam saafara la yërmande la ci ki gëm yàlla waaye du dolli ki nga xam ne gëmut yàlla muy bokkaale kat ba lu dul perte pertaange la koy dolli ibnul jawzi mu ne li borom bi tabaraka wa taala wax ne wa nunazilu min minal qurani min jooju ne li bayaanil jins xeeti saafara yi nga xam ne alquran làmboo na ko ñett la bi ci jëkk shifaun min ad-dalal lima fihi min al-huda saafara la ci saafara buy saafara ak réer ngir njub gi ci nekk ak leer gi ci ne ñaareelu saafara bi mu ne shifaun min as-saqam lima fihi min al-baraka dana saafara it ngir barke bi ci nekk ñetteelu saafara bi mu ne shifaun min al bayan lil faraidi wal ahkam para la boo xam ne dana saafara ki yoroon raggug bëgg mbir mi leer ci moom te leerut bu alquran ñëwee dana ko leeral xam nga ne eh, ki yor loo xam ne daf koo soxla mu leer ci boppam te leerut mu yanu ko muy ay lënt kooku kenn gënu koo tawat kenn gënu koo tawat nee na nag ñetti saafara yooyu yépp alquran làmboo ko bu fekkee settantal nañ danañ gis ne aaya bi ñu jàng léegi wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lilmuminin wa yazidu zalimina illa xasaara kooku mi ngi dugg ci bu njëkk bi shifaun min addalaal maanaam saafara bi ñëw ci aaya boobu mooy saafara ko ci ëg réer ba mu génnee ci dem ci ak njub moo tax mu ne ka ciy jariñu mooy ña yàlla bokkaalekat ba su aaya ba ñëweeg lu mu leer leer daf koy dolli rek pertaange ndax daf koy jàng rek jàll waaye du ko jariñ dara moo tax wala yazidu zalimina illa xasaara kon aaya jooju mi ngi ñëw ci saafara nit ki ci ak xaaju ñaareel bi muy saafara ko ci feebar alquran dana ko def bokk na ci li ñu koy tegtal li ñëw ci yi ni muy buxaari ak muslim ne am na kenn ci saxaaba yi koo xam ne dafa romb euh, genn gàddu naar muy ay arab seen kilifa jiit fett ko walla jaan natt ko yenn riwaay yi xam ngeen ne jiit ci eh, yenn béréb yi rawatina ci réewi arab yi moo ëpp tooke moo ëpp tooke sax jaan bu nit jiit fettee nit nañ cay amee njàqare duñ ko ca ame bu fekkee ne jaan natt kooku jiit moo ko fettoon kon ñu am njàqare lool mu dem bay bëgg a faatu mu romb fa dikk daa di koy jàngal fatiha mocce ko ko waaja daal di wér xadis ba sax ni mu ko melale daf ne fa ka annama nashita min aqaal wantalaqa yamshi mu ne dafa mel ni kuñ woon ba tinki ko mu ne bëreet jóg di demu yoonam te fekk mu nga tëddoon taxaw sax mënu ko woon kon kooku fatihatul kitab la ko saafara mu wér te xam ngeen la ca mujj mooy ba mu ñëwee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam saxalal na ko loola lañ ko joxit mu saxal ko kooku ci feebaru yaram la kon fatihatul kitab te ci alquranul karim muy ndey ndeyi alquranul karim sax umbul kitab kon euh, saafara na foofu feebaru yaram bu dee ci feebaru xel ak feebaru bakkan itam ñoo euh, ngi yore xadis boo xam ne Abu Dawud moo ko génne ci sanat bu wér jële ko ci ku ñuy wax Xaarijat ibnu Salt at-Tamimi mu jële ko ci euh, baayam bu ndaw muy kenn ci saxaaba yi dafa ñëw ci yonente bi alayhi salaatu salaam dal di dugg ci lislaam suma aqbala raajian min indihi ba mu dikkee dugg ci lislaam bay dellu xanaa jàng falam fa jàng di ñibbi fa marra ala qawmin indahum rajulun majnunun muwassaqun bil hadid mu romb nit ñooñu gis ne ñoom dañoo yor benn dof boo xam ne ma nga ñuy yeew biñ ko séenee xam ne kii ci ñi jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam la bokk nee na fa qaala ahluhu inna xuddisna anna saaxibakum hada qad jaa bi xayr fa hal indaka shay'un tudaawih ñu ko nun kat danoo dégg ne seen àndandoo ji indi na aw yiw waaw ndax yor nga loo ko mën a saafaraa nee na fa raqaytuhu bi fatixati alkitab fa baraa nee na ma mocce ko faatixatul kitaab moom dof ba ba ñu yeewoon mu wér fa aataw nii miata shaatin nee na ñu jox ma téeméeri gàtt fa ataytu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa axbartuhu nee na ma dikkee yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi ma agsee ma nettali ko ko nee na mu ne hal qulta gayra haada mu ne ma ndax wax nga leneen lu bokkul ak faatixa bi nga koy mocc qultu laa dama ko déedéet fatiha rek qaal xudha fa la amri laman akala bi ruqyati batilin laqad akalta bi ruqyati xaq nee na mu ne ko jëlal say gàtt su fekkee ne am na ku lekk te fekk daa mocc mocc goo xam ne ak neen la ay caaxaan la lu bon la yow day mocce nga mocc gu baax kon nag foofu tomb bu am solo ngi fi moo di yonente bi alayhi salaatu wasalaam laajuwaat gi mu ko laaj ndax wax nga leneen lu bokkut ak fatihatul kitab ndax kat noo ngi dund ci jamono joo xam ne am na ay doomu aadama yoo xam ne dañ na la alxuraan la ñuy mocc ak sunna léeg-léeg waaye waxuñu la lépp léeg-léeg nga gis téere ak ci boggal de yoo xam ne dañ ne la alxuraan kese la waaye boo teppee xool da gis ne leneen a nga ci biir lu bokkut ak alxuraan ak kon loola danañ ñëw ci kanam ak waaye nu jàpp ne lim ko wax ne ko hal qulta gayra hada lu am solo la ndax nit ki kat léeg-léeg mu jàng alxuraan ba noppi tàbbali yëfam ca biir wala mu bind baagal defub daayiraam ca biir wala xaatim wala moo xam nu mu ko tudde yooyu ay mbir la yoo xam ne danañ ci romb ci kanam insha allah kon saafaray ñaareel bi kon mooy saafaray feebar ngir li ci nekk ci baraka saafaray ñetteel bi mooy saafaray bayaan li lëntoon ci xel mi mu saafara ko loolu itam ñëw na ci alquran borom bi tabaraka wa taala nee na walaw jaalnaahu quranan ajamiyan la qaalu lawla fussilat ayatuhu a ajamiyun wa arabiy qul huwa liladina amanu hudan wa shifaa nee na su fekkoon ne def nañ ko alquran ci weneen làkk wu dul làkku arab kon ñu ne ah lii de waroon nañ ko def ci weneen làkk ndax mu leer lii de waroon nañ koo def ci weneen làkk ndax mu leer borom bi tabaraka wa ne mbir ma nekkut foofu a ajamiyun wa arabi mbir ma nekkut ci ñi naan arab la ak ajam la li am mooy alquran ci boppam lilladina amanu hudan wa shifa njub la muy saafara si aju ci génne la ci ak lëndam dugal la ci ak leer wa shifa nekk shifa saafara soo xam ne leeral googu yi ñuy wax naan fussilat ayatu ko dikk na ngir leeral aay waaye walladina laa yuminuuna fi aadanihim waqr loolu mooy muskila bi ñi nga xam ne gëmuñu seeni nopp daa mel ne dañ ko saañ lum leer leer day gën lëndam ci ñoom moo tax mu ne waxuwa alayhim ama dafa mel ne buñ koy xool day mel ne dañoo silmaxa ulaika yunaadawna min makaanin baid ñooña neexuñoo woo ndax dañoo sori loolu moo tax ibnul qayim ne falam yunzil illahu subhanahu min alsamaai shifaan qattu aamma wala anfaa wala azama wala anjaa fi izalati daai min alquran borom bi tabaraka wa taala wàccewut mukk loo xam ne saafara soo xam ne moo gën a matale gën a jariñ gën a màgg gën a mën a faj gën a mën a dindi ak ràgg alquran al karim kon xeeti ràgg yépp muy ràggoog réer ak ràggoog yaram ak ràggoog lënt yooyu yépp alquran daf koy saafara mu wér léegi nag ginnaaw loolu mbir mi noonu la demee alquran saafara la xoli jullit yépp jublu nañ ci fu ñuy jaar nag ba saafaraw ci alquran kon foofu nag lan soxlaa tawaabit yi ñuy tënku ngir mën a saafaraw tadaawil mashruux nag bu ñu ko waxee ci alquranul karim mooy mocc mocc mooy lan qiraatu al ayat wal adkar wal nafsi al marid jàng ay aaya alquran wala nga jàng lenn ci zikkar yi rot jóge ci yonente bi alayhi salaatu di ko ñaan di ko ci ki nga xam ne moo feebar mocc googu nag muy jëfandikoo googu saafara googu du jaar ci ni ko sharia bëggee lu dul ñetti charte daf caa daje ba ci jëkk an takuna min alqurani wal ahadis aw min kalaamin naafia mu nekk jóge ci alquranul karim wala mu jóge ci xadis yonente bi salallahu alayhi wa wala bu fekkee ne ci beneen wax la bu dul alxuraan ak sunna mu doon wax ju leer nañ ñi ju mucc ci lépp loo xam ne lu koy gàkkal la ndax ñaan mënees na ko def ci yeneen i làkk ñaareelu charte ba an takuna bi lugatin mafhuma mu nekk di aw làkk woo xam ne wuñ xam la bari na ñoo xam ne kat boo dégloo nañuy mocce la ñuy wax làkk yu nee nga ca la nga xam nga ca la nga xamuta nga ca nga dégg ñu naan bisimilahi tookee rahmaani tookee balla tookee balla balla tookee jinne yi tookee ah kenn xamut loolu lu mu doon ci àdduna bisimilahi tamlihan rahmaani tamlihan rahimi tamlihan tukkum suj nukkum suj ah boo dégloo da nga dégg baat yoo xam ndax lu mel ne bismillah mi ngi ci biir boo demee ba ci kanam léeg-léeg nga dégg loo xam ne wolof la ndax ndax jat woowu yi ma doon wax léegi <laughs> boo toppee bisimilahi tooke rahmaani tooke balla tooke balla balla tooke jinne yi tooke yaay boyu maa suuñi ga nóoroo nuuxu na sax dem nañ ba ci mujj naan yàlla du jur doj du naaj ci kawar du bedd subbulu bu bu wala yaasu billah ay yëf yoo xam ne doo xam lu mu doon ci àdduna kon toog di wax loo xam ne xamuma yow jinne ngay waxal walla seytaan ban xeetu wax ngay tàllal say loxo di ko ko ñaan kooku musiba la ci nit ki ndax boo demee li ngay wax kéefër la te yëgoo ko ay mbir la yoo xam ne bëgguñu ko détaillé waaye ñu xam ne antakoona bi lugatin mafhuma mu nekk ci aw làkk woo xam ne wuñ xam la ñetteelu charte yi an yakoona xaaliyan min ashirki wa daraihi boobu charte day topp bi ko jiitu woon mooy na mucc ci bokkaale ak lépp loo xam ne dana yóbbee nit ki bokkaale kon su xasee nekk alquran ak xadis kooku moom taxut ñuy wax bokkatul ci bokkaale waaye su fekkee ne fexe nga ba mu doon jeneen wax wax jooja ca la ñuy charte mu doon lu ñu xam ca la ñuy charte itam ba mu doonee lu ñuy xam ba noppi na mucc ci bokkaale waaye bu ci bokkaale nekk muy woo jinne wala woo seytaane wala ñu la da ngay rey dàngam reyal ko nangam beneen charte bu mën a doon boo xam ne dafay yàq loolu su boobaa googa mocc duutu doon moccuk sharia kon nag bokk na ci dawaabit yi muy atte yi nga xam ne war nañ ci tënku ngir mocc gi mën a wér mën a tegu ci sharia ba ca jëkk alxadar min altamaimi sinaatan wa taaliqan bu fekkee xam nañ ne sharia lim jàngale ci faju ci alquran mooy mocc te xamul na geneen sharia xamul neneen kon tomb bi ni njëkk war a wattandiku mooy lépp lu aju ci loo xam ne lu ñuy bind di ko takk la moo xam da nga koy def yow wala dañ la koy defal nga di ko takk qays ibnu sakan al asadi dafa ñëw dugg fi abdullah ibnu mas'ud radiallahu taala anhu dafa ne abdullah ibnu mas'ud dafa ñëw dugg fi soxnaam daxala ala imraatihi fa raa alayha xarzan min alxumra fa qataahu qataan anifan ne abdullah ibnu mas'ud dafa génn dikk dugg këram xool ji soxnaam takk ab téere ndax ab neew bu ko daloon nee bi Abdullah ibn Mas'ud duggee laajut dafa jàpp téere ba dagg ko qataan anifan sax la wax dagg gu metti suma qaal inna ala abdillahi an waa kër Abdullah ibn Mas'ud day am nañ leneen lu leen war a doy wala si ñuy bokkaale loolu la wax soxna sa daal ne ko kaana mimma xafisna an innabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nun jànge nan ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna arruqaa waltamaa'ima wattiwalata shirkun xadis bu wér la nee na mu ne ko jànge woon nan ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne mocc yi nga xam ne mooy mocc ceddo ya mocc yi nga xam ne mooy mocc ceddo ya mooy yi nga xam ne sart yi ñu tudd dajewu ci ak boggal de muy lañuy bind di ko takk ak ak tiwala muy noob noob loo xam ne nee nañ yooyu bu ñu ko defee day tax jigéen ji bëgg borom këram wala borom këram bëgg jëkkër ji nee na yooyu jànge woon nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne shirkun ne loolu bokkaale la kon loolu jeex tàkk Uqbat ibnu Amir al-Juhani radiyallahu taala anhu kenn ci saxaaba yi la nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis aqbala ilayhi rahbun mbooloo daf ko jubal ci ñoo xam ne sax na ci riwaaya ne fukki nit la woon fa baayaa tisaatan wa amsaka an waaxid fukki nit ñu ñëw di tuub si dugg ci lislaam biñ dikkee mu jaayanteeg juróom-ñeent yi kenn ki tàllal ay loxoom bëgg a jébbalu mu ne ko déedéet qaalu ya rasulallah baayaata tisaatan wa tarakta haada jaayante nga ak juróom-ñeent yi yow yonentub yàlla bi ba noppi bàyyi kenn ki qaal inna alayhi tamima mu ne leen kii dafa takk ab téere kooku dafa takk ab téere fa adxala yadahu fa qataaha ne waa ji dugal loxoom daal di dagg téere bi mu takkoon fa baayaahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam summa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man allaqa tamimatan faqad ashrak mu ne ko takk ab téere bokkaale la kon loolu jooju jaww moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon dund ak saxaaba yi kon kat ñu xam ne ceet doog a ndeke lu jiite lislaam takk ay yëf amoon na isa bnu xumra nee na daxaltu ala abdullah ibnu hakim wa bihi xumra nee na ma dugg gis ko mu yor ay neewoo fa qultu allah tualliq tamima ne ko ah da ngaa mënta takk ab téere takk loo xam ne day tax mu wér fa qaal naudu billahi min dalik nun day noo ngi muslu ci yàlla loolu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man allaqa shay'an wukkila ilay mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ku takk dara ñi bàyyi laag loola ku takk dara ñi bàyyi laag loola wa fi riwaaya al mawtu aqrabu min dalik ne bi mu ko ko waxee dane ko loolu dee dee sa xama ko gënal ndax doo takkub téere mu ne ko dee ma ko gënal kon wattandi takk yu mel noonu lu mat a bàyyi xel la dadi nag takk téere yi ñaari xaaj la li nga xam ne moom du alxuraan kooku boroom xam-xam yi juyoowuñ ci ne baaxut ndax benn mu doon ak bokkaale ñu ngi ci jublu ya ngay takk mu doon ay ay ay ay reen wala ay béjjën yuñ sox wala yuñ soxul wala mu doon ay we wala mu doon yu kenn xamut yu mu doon yi nga xam nit ñaa ngi koy takk ngeen di ko gis yooyu benn mu nekk bokkaale moom ci boppam wala mu nekk zaria muy loo xam ne day ñoddi nit ki yóbbu ko ci bokkaale wala mu yóbbu ko ci sax euh, waliyaasu billah ak génn diine ndax kat bunt boobu bunt yëfa ngi fi yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala rek moo xam ak ña nekk ci biir na mu saltee yal nañu ci yàlla musal su fekkee ne du alxuraan kon loolu moom borom xam-xam yi juyoowuñ ci su dee alxuraan nag la nit koy takk kooku li gën mooy bàyyi ko lu tax moo di yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak i saxaabaam doon nañ faju ci alxuraan te takkuñu takkaluwuñu itam te it xadis yi nga xam ne dañuy ñëw di wax ne man àllaqa tamimatan ku takk ab téere xajjalewut xajjalewut bu mel nii ak bu mel nee te dañuy wax ci xam-xame usul ne